te fu ma lay jëm xam nga li ci doy waar mooy lépp lu may seet ba la koy wax du naa la dàq dama naa la diw la bu dee RFM ma ne la Babacar Fall la jël exemple bu fekkente ne damaa jëm Zik FM ma ne la kaay woo ma Birahim Touré exemple rek laay jël waxuma ñoo ma exemple bien sûr bu fekkente ne damaa jëm damaa jëm Sud FM ma ne la kaay dama woon ma Mbacke si la waaye diw daa ñuul ak diw daal weex lii sa lii suñ borom moom a ko may barke alxuraanu karim. diw daa weex ak seet maa ko dàq Sénégal macha allah tey naagu wuma ci mais yàlla mi ma ko may mën naa xëy xañ ma ko. xanaa kon xale bu jigéen bi euh, bëgganteeg waaye man nga ne ko diw lay takk carrément. xanaa xanaa xamoo benn mbir. Hmm. ren sëy yiy tas. mooy ëpp ci àdduna ba àdduna sosoo ba tey. sëy yiy tas ren moo ëpp ci àdduna te ren. waaye sëriñ bi lu waral loolu. def li waaj olofal bi lu mu baax. defin wu ñaaw. jamono dafa toll foofu sénégalais nag bëgguñu dëgg booy wax dëgg dañ lay mere te man mënu maa wax lu dul lii fi ne boo ñëwee nit dina labat ngeen ànd di ñëw nit ñëw na ànd ak nit ñëw ba ñëw na ma na ma damaa bëgg ma ne ko du la takk te démb ci guddi sëy ngeen mu ne ma ah man ne ko waaw waaw barke alxuraan ban ñàkkee sëy ba mu ñëwee na ma nu may def ma ne ko xaw ma nooy def te mënu laa ñaanal man sëñ bi bu ma ñamee woon yàlla yor naay milliard ndax li may gis gone du ko gis te sax seet nag lu ma la ci wax bindal denc. dafa am sama benn xarit boo xam ne daf ma mës ah! daf ma mës a nettali. waaw ci yow sëriñ Mara Niass la ma wax mu ne ma. <laughs> Mhm. dama fa mës a dem. Euh, sëriñ Mara Niass wax ko ki may bëgganteel. mu ne ma <laughs> euh, kooku comme télé la. mën naa mhm. bañ a jaar ci tur bi mais xam naa mhm. ko. su ma ko wax ma la waxoon turam itam di nga ko xam. mu ne ma Sëriñ Mara fa dem ne ko ñaanal ma seetal ma. Euh, fekk boobu maa ngi doon génn ak waa ji ba mu toll ci sëy sëñ Mara ne ma ah. te ngaa bàyyi. kii du sa jëkkër te ngaa bàyyi. waaw ma dëgër bopp mu ne ma len de xam naa ko. Mhm. sa deuxième jëkkër a ngi ñëw. boo sëyeeg boo sëyeeg moom sa deuxième jëkkër a ngi ñëw. <laughs> mu ne Serigne Mara ni mu ma ko waxee woon waa ji bi ma sëyeeg moom dama divorcé ak moom amaat beneen jëkkër encore. barke alxuraan moom wax la. est ce que xam nga est ce que xam nga benn mbir. Jean su ma la waxoon tur bi da nga koy xam <laughs> voilà. est ce que xam nga benn mbir man njiitum réew mi réew mi sax bu bëggee gis boppam maa koy seetal. Marème Faye Sall kon man danaa seetale xale wala may seet dara di wax li sama naf su bakkan bu bëggee gis boppam man maa koy seetal nga naan ma ay gis nga man li may gis ci seet nga baal ma ñii duñ ko gis te xam nga benn mbir na dem nga faj sa biir bii di metti yow te dinaa wax benn mbir sa kër nan fa woote suba suba suba ñu génne la ñetti yi laax sarax yow sëñ xaadim gis nga boo ko deful balaa ñoo génn semaine bi di nga am naqar wu rëy barke alxuraanu karim. biir bu sonal la ma de. billaahi wal kitaabi. biir bu sonal na nga dem nga faj ji sa biir ci yow. te boo ko deful da am problème man a xam naa ko demal nga faji biir bii nekk ci yow. nga baal ma dañ laa jox nga lekk te bu la neexee ma jox la tur wi. <laughs> Ah, alors euh, je pense dañuy dañuy dañuy dañuy dugg teg léegi ci beneen ci beneen ci beneen point. Euh, di leen wax nit ah, biir bi bu amee nee ma am na bu amul nee ma amul. barki Serigne Bamb damaa sonal Serigne Bamb du ma ko waatee jaaxaan biir bu ma sonal la daf ma sonal torop sax ko à chaque fois damay yaakaar ne leneen la moom. dama yaakaar ne entraînement yi may def sax moom ma ko def. naa la jox tur bi ki la ko def saa yi ma yaakaar ne tooy la waaye yàlla baax na. alors euh, dañuy ñëw léegi si benn point boo xamante ne bi itam. leneen la leen bi sax bu ubbi woon bu la neexee gars yi dugg ma seetal leen direct wax leen seen aajo am wax la fi nga doon ak ki nga doon <laughs> man fi mu ne dë dëkk dëkk bi yëngu na ah. <laughs> ah Aliou mi ci régie bi nee na ma nee na su fekkee ne. dafa dafa am ko bëgg a seetlu. waaw euh, donc mën nga ko dugal directement. waaw bu ko bu ko benn sëriñ di def yii nañ toog te déglu ma yàlla di. parce que itam sëriñ Mara Niass la waaw dara sëriñ Mara Niass mu sëriñ Saliou. alors euh, euh, ci beneen fànn bi may ñëw mooy diggante Wally Seck ak Sidi Diop. gis nañu mhm. coow bari na temps yi. Mhm. la Wally génne na annoncé ñetti clip yi mu war a def. Mhm. Sidi itam génne donc coow li toppante bi bari na est-ce que lu jik Sidi la noonu muy topp Sidi Diop muy Wally Seck sama yoon nekkul ci ñoom bokkuñu voix soxlawuma leen lijjantiwuma leen nañ dem seen yoon sama yoon nekkul ci ñoom lijjantiwuma leen ngaa ko beneen day sama xarit ku dul kooku waxuma ci yow dara. en tant que doomi réew mi euh, itam euh, waaw ngaa xam moom sa xarit la parce que itam gis naa euh, nii nga xamante ne bi noonu ngeen xaritoo. fi mu ne sëñ sëñ bi koo ciy waxal lu baax nit ñi jàpp ne da bëgg a xamanteeg moom. te xam nga ne Wally Seck bi papaam di faatu maa toog mu des weer ma gis Wally Seck ci boppam dugg ci teen hmm? waaw ma xëy suba woo ngaa ko beneen de wax ko na ko Wally damaa gis mu dugg ci biirub teen lii di ñëw ci moom nag baaxut hmm. man maa ko gis ngaa ko beneen de bu amul na génn ne damay fen hmm. ca Wally ña taxawoon ci pindu pen ba man xam naa leen te loola la muy sabab xam naa la muy firi te boo ko waxee ñu jàppante ne da bëgg a xam waali man damaa bëgg xam kenn mooman bi ma xamee Serigne Saliou la ma dimbali bu amul na génn wax ne amul ñooñu li ma xam ci ñoom xamu ko xamuñu ko ci seen bopp xam nga ne xam naa ku ku ku ko jege koo xam ne da doon téelu wàllum <laughs> alors même su fekkee ne waxoo ci euh, Wally Seck en direct man même euh, directement mën nga wax si euh, bayre bi nga xamante ni bii moom ah! amee na na ko. wala bayre artistes yi fan la ñuy mënante ci wàllu ñaan sëriñ bi. bayre bayre bayre na sa bayre hmm. Wally Seck xam nga ne tàmbalee gut a way bindal denc. Hmm. xew a gut bindal denc ndax damaa gis Wally Seck nit la ngaa métul moom faatu damaa gént gis ko mu nekk ci seen di way nit kottu ko faatu. man maa ko gis lijjantiwuma leen man bëgguma leen a xam barke alxuraanul karim taalibe gi mu doon taalibe Serigne Saliou xam nga kañ yaa ko mas gis sama goro Serif ti laa la faal mi ma mayoon soxna. Mm-hmm. dib sëriñam. moom Waly sa Waly sama taalibe la. sama taalibe la ndax Waly ki ko ki mu jébbalu moo na may mm-hmm. muy Serif ti laa la sama taalibe la. bëgg naa nag euh, bu ma xalaatee foofu sax ndax ndax sama waajanam ko defoon damay xalaat di ko sotle tuuti. waaye léeg-léeg dugg ci nit dafa metti ndax duñ xam ne la indi. danga ne danga gént mu dugg ci lan. waaye li damaa gént mu dugg ci teen booba papaam faatuwagul ma woo Ngaaka Blindé wax ko ko waaye Ngaaka it jamono jooju bu tëboon wax ak Wally mën nañoo jàpp na dara la te man gis naa lay dugg ca kër gën a ma yàlla baal Ngaaka na wax bu amul sama bakkanu yaay nii laa ko gisee man li may gis. duma ci ndam duma ci naan jamono bii danga nga am loo jëntaat ci waale jamono bi période bi. waale li ma gis ci moom jamono ji coow lu teb bi leneen tegu coow lu teb bi leneen tegu. coow yi jeexagul daal coow yi waale jeexagul boo bëggee dégg dëgg dafa des. coow yi waale dafa des te waale li ci doy waar mooy damaa gis lu naaw lu rëy luy wër réew mi ñu ne ma lee waalee ko moom luy naaw luy naaw loolu lan la. <laughs> barke alxuraan damaa gis luy naaw ñu ne ma lee waaleeku moom luy naaw la ma dikkee man luy naaw. lu doon luy naaw. waaw lu mel ni saaru ropp laan ñu ne ma waalee ko moom fañ gisante nag la tax sama xel dal ci mooy dafa vert ah, moo tax jamono jii ah? ah? waal daa yim. te man xanaa xamoo ne moo sàcc wax la beneen mbir waali xam nga ne day ñaan. lan waali sekk. day ñaan day listixaar day ñaan xam nga loolu. dafa am xam-xam nga bëgg a wax. Waly sekk day listixaar te day ñaan te Waly waa orchestre bi am na ci ñoo xam ne mi ngi leen di wax ay sarax te ñu ngi koy def. mais mais sëñ bi li ngay wax ni li ngay wax ni. képp gars yi maa leen gën a xam li ñu ree rek maa leen gën a xam li nekk seen biir poos. waa waa régime mi ngi may ñi ngi may wax ne ma sëñ bi lii muy wax dëgg la ci waal. mais loolu moo am Waly Seck. day ñaan <laughs> Wally Seck waa Ramdaan ñi koy wër am na ñoo xam ne daleen di wax def leen saraxul te buñ ko defee lam leen di wax nag dañ koy gis moo tax waa ji nee na Wally <laughs> mais kon Wally sëriñ la c'est vrai que. Wally sëriñ bis bu karaw gi rek doonatul Wally moo tax na téye karaw gi ba ci kanam ñaan naa ko ko hmm. Wally ci tegtal lay dox te dama fi jële mag ñi ñépp nag ba noppi toog <laughs> barke jëmmi Serigne yu Mbacké bu fekkente ne li may wax nii du dëgg ci man wala ma jubli ci xam waale yàlla na ma suñ borom jële ci àdduna bi ci lu gën a gaawee. rawal parce que moom day wax ne waale waale waale du neenu neen yàgg na wax loolu de. day wax naan. waaw ci xam man. da koy wax xam nga doo déglu waay doo déglu waay waay ñun ñu koy déglu. wa wa wax yàgg na wax ne waali du neenum neen du ko confirmé. xaw ma neenum neen la xaw ma du neenum neen de waaye waali yii ma gis ci moom moom. Ah. kenn nettali ma ko waaye xam nga benn mbir. Hmm. waali mën naa dimbalee waaye mënta dimbalee boppam. te coow luy daw di ñëw ci moom ñaari fan ñett da koy gis waaye du xam luy solution bi lu ko koy mën a fànqal. Hmm. moo tax jabar ji day tuñ tuñi di ci sonn pour mu fànq. waaye jabar ji moom it li waali di gis du gis virgule waaye léeg-léeg waali da koy wax loo xam ne du ko gëm moo tax buñ toogee naan danaan ko yow dañuy moytonte ñaari biddiw la yu fenk yu suñ borom boole waaye jabar ji wërsëgam dëgg-dëgg sax nekkul Sénégal moo tax waali benn xeer la buy jam ñaari koy waxee. fetal ñaari ngéb. gis nga jabar ji wërsëgu nit ku weex la yor waali yor wërsëgu nit ku ñuul. te ñaar ñooñu fuñ dajee en général mbir mi nii lay demee xanaa maa xam waali. sëñ bi li nga wax si waali ñun mosu koo wax ci waali ah c'est vrai que. mais ko seen ñoom sëriñ si xamuñu li may wax. billaahi wal quraan xamuñu ko tey waali laa teg suba dinaa ñëw ci Sidi Diop naa suba ma ñëw ci ci mbay gën ginnaaw suba ma dem ci Pape Cheikh Diallo moom ci biir kool gi laay ñëw ci mbiram ñëpp danaa leen fi teg plateau spécial. damaa toogoon na tekk di liggéey mais nag jóg naa danaa li wétt ci réew mi nag fi mu ne. c'est vrai que jóg na c'est vrai que jóg nga alors euh, donc mu ngi noonu Serigne Mara Niass mu Serigne Saliou <laughs> ñun ci euh, TikTok bi léegi la lay gis euh, c'est vrai que Mara bëggatul def ay sorties yu bari déedéet ci TikTok bi lay tool di euh, yeete mm-hmm. di di waxanteeg Alpha mi nga xamante ni mooy xalifa sénéraux yi nañ génn kër gu nekk ñaari nag yu ñuul ak ñaari nag yu weex